أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ba ñu musal seytaane sant borom bi tabaraka wa taala julli seenante bi ñu ngi ziyaar kilifa diine yi nga xam si ñoom la yàlla teg ci kanam diine ji fii di nekk jiital ci ziar boobu nag sëriñ maxtaan Naan loo nga xam ne moo jiite fii ñii barab bi ñu nekk di kokki di ziare di leen ñaanal ñun ñëpp gudd fan wér yaram di ziar ñi jàppale ci liggéey bi ñëpp di ziar tamit ki jiite kër gi ñuy waxee di professeur Abdoul Khadir Seck yàlla na yàlla jàppale di ziar technicien bi nga xam ne moo nekk ci xarale gi suñu rakk Mbay Sall di ziar ñi nga xam ne si ñoo ñooy taabaa ñooy topp Daara Koki yi ñëpp xam naa fan yi ñu ngi si si fan yi mujj yi si weeru koor gi émission yi weeru koor la doon topp yàlla na yàlla nagul suñu koor su def nu ñu dëppoog guddi goog nga xam ne suñu borom moom la kii si biir koor mi laylatul qadri gannaaw loolu nag ñun ñu ngi doon wax si histoire daara démb ak tey daara démb ak tey di wax si daara di wax si ñooñ daara ñooñ daara la bu ko waxee ci réew bi ñu nekk di Sénégal mooy ñi nga xam ne ci ñoo ngànk diine ji ñoo koy jàngale ñoo koy waggar ndax nit ki mën naa bokk si ñooñ daara mën naa bokk mën naa nekk ñooñ daara su yorul daara waaye teewul mu ngay waara si jàkka ja mu ngay jiite mu ngay jubbanti lépp loo xam ne si rafetal diine ma ngi see taxaw kooku da nga koy boole si ñooñ daara léegi ba loolu jàllee nag ñu commencé woon di waxtaan si daaray Koki daanaka weeru koor yëpp si la ñuy waxtaan bëggoon nañoo jàll si yeneen daara yi waaye xam naa waxtu moo ko ma teewul daaray Koki nag waxtaan nañ si Koki ku njëkk ga Koki Maxtaar Ndumba Jóob wax si lu bëree bëri waxtaan tamit si Koki gannaaw Maxtaar Ndumba Jóob bi nga xam ne si sëriñ Koki Njaga Isa jël na liggéey bi ndax Maxtaar ndax jamono ji nga Maxtaar Ndumba Jóob yoree ba jóge fi doom ji di ko Ahmadou Fakhour Dia ak borom xam-xam yi leen waroon yooyu dañ koy tuddee benn marxala benn jamono si jamono si kokki yi nga xam si kokki daka ak seddalikoo jàng histoire gannaaw loolu ñëw si marxala bi nga xam ne si njaga isa mooy batal bi sëriñ kokki njaga isa njaga isa jee gannaaw gi loolu nag loolu ñu wax ci lu baree bari foofu ni ba ni sëriñ kokki jógee fii ak ni njaboot njaboot gi tamit taxawaat liggéey bi lim si ñu bëree bëri lim si li mel ne Serigne Koki Ahmadou Ahmadou Aminata rakkam Samba Amin Samba Aminta Serigne Koki mënu maam Soxna Fall Serigne Koki Balla Soxna Fall ila axiri lim nañ si ñu bëree bari Serigne Koki Baye Modou Maam Diop ila axiri lim nañ si ñu bëree bëree ba liggéey bi agsi fii nii tey la ñu ngi war a commencé si Koki ki nga xam si mooy daara yi si Ahmed Sakhir Lo nga mooy mu àggale liggéey bi nga xam ni ñëwee si la. moo jël liggéey fa mu nekkoon mu jëlee ko foofu mu nekk yóbbu ko fu soree sori ba tey àddina bi yëpp foo toll dégg ñu naan daaray kokki tey nag ñu war a waxtaan si daara jooju ak si jëmm jooju si Ahmed Sakhir lii di si wax lu baax a baax la loo dafa amal njariñ jàngkat yi di amal njariñ ñi nga xam ne si ñooy ñoo dëkkee Sénégal ndax jullit ñi yàgg nañoo yittewoo seen xam-xam yi xam di xamle seeni i mag buñ jëloo si histoire dañuy fekk ku mel ne. day eh, fekk mel ne al allaama ibnu hajar al asqallaani yi xam ne amirul muminina fil xadis lañ koy lañ koy dàkkantale day fekk mu bind téere bu mag a mag a mag tudde ko adduwarul kaamina fi ayaani qarni saamina dajale borom xam yu mag yi doon dund ak ñi nga xam ñu doon liggéeyal diine si qarnu saamin alhijri kon noonu lay fekk tamit taalibeem bi as saxaawi mooy mu daal di def beneen bi mel noonu tudde ko ad dawul laamia fi ayaani xarni taasi noonu ci dañuy fekk tamit ku mel ne taaju diina ak subki def téere bu mag a mag tudde ko tabaqaatu shafiiya al kubra noonu ci dañuy fekkwaat tamit ku mel ne shawkaani def badru taaliya al badru taaliya fi ayaani xarni taasi al badru taaliya nga xam ne boobu daa nekk ay dab dabaatal lii addaw ul laamia fi ayaani xarni taasi nga xam ni moom tënkul sax si xarnu taasi donc waaye yokk na si lu bëree bëree bëri mooy al al taalian li li li li Shawkaani yi gannaaw bu ñëwee ba dugg si réew mi ñu nekk di Sénégal dañuy fekk tamit ñu suñu mag suñu magi démb liggéeyoo si liggéey bu am solo ñu fekk mel ne Serigne Bachiru defar Minanul Baaqil Qadim pour xamal ndaw ni kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba am na ñoo si ku leen xam yeeg. jéego la pour nga jaar ci yoonu jub noonu dinañ fekk tamit ku mel ne ku mel ne sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana def irwaaw na di moom it pour xamal nit ñi pour xamal sénégalais yi xamal jullit ñëpp kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba noonu bi lañuy fekkee tamit ku mel ne sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh defoon aw daxlu masalik fii siirat alxaaji Malik xandi boobu mu nga ko defoon tamit si si histoire jàngal nit ñi kan mooy Seydi Hadji malik kon loolu yàgg la si fii ñu nekk nii nga xam ñi borom yàgg nañ kaa yittewoo yàgg di bind ay téere di toog di wax ndaw ñi ñi nga xam ne si fi jaaroon di war xam-xam yi mag a mag a mag nga xam ñoo sampul islaam dooleel ko ba islaam tey àgg fii si émission bii di ñëw la si leen bëgg waxtaan incha allah si la war a commencé waxtaan li wax waxal leen kan mooy si Ahmadou Sakhir kan mooy si Ahmadou Sakhir moom mi nga xam ne si fii ñu nekk tey di penc mi ñu koy wax daaree kokki jamono ji ñu toll ni nga xam ne mooy moom la ñuy tuddee daaree kokki jamono ji ñu toll daaree kokki jamono ju nekk daa am nu nekk woon ndax jamono yi moom Maxtaar Numbe loolu ab marxala la marxala bu am solo nga xam ñoom la liggéey Sénégal kenn du ko fàtte ilaa yawmi ilaa yawmi ilaa yawmi diin gannaaw gi loolu tamit gannaaw bi sëriñ kokki njaga isa ñëwee tamit jamono jooju ba jamono ji si am saxir ñëw jamono jooju dafa nekk jamono joo xam kokki dafa nekk dëkk boo xam ne sii daal ñu ngi ñaax suñu mbokki gëstukat yi loolu man si yokkoo di bind ay téere wala seen seen boxoo si al almiya yi ñu yittewoo kokki ndax marxala bu nekk nit ki mën na mën nañ seet bind ay rasaayil yoo xam ne si du am yemukaay ndax marxala marxala boo jëlee si kokki day fekk mu riche riche riche nga fekk ñu baree baree baree bari daara yu baree bari si réew mi ñàkk daaru yàlla yi kokki leen bàyyeekoo kon ñeemale foofu émission bi ba suba incha allah yàlla nañu yàlla defal jariñu si li ñuy wax te li ñuy wax tamit yàlla na yàlla def ma am njariñ wa sallallahu taala ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman